ma ni Madické moo nekkaat en ligne mhm. ba léegi ñu bàyyi Ndeye Fatou bu fekkee dafa am laaj boo koy jagleel moom maître Madické Niang waaw maître comme d'accord na ni ñee jiitu nañ et que dina leen soutenir ce qui est clair mooy maître clarifier nga ni ki nga xamante ne mooy Idrissa sa au cas où moo war a dem deuxième tour kon ci ginnaawam ngay nekk pour jàppale ko waaw mais loolu mosuma si am ma mhm. maam Adama Gueye mën na ma seede ni man toujours yàgg naa wax nañu signé accord boobu ñun cadre yëpp di arrivé au deuxième au deuxième tour incha allah su deuxième tour amee moom lañ koy jàppale réew mi ni affaire yi tëdd ñëpp xam nañ ni deuxième tour dafa war am deuxième tour boobu Idrissa la war doon te dinaa ko jàppale su neexee yàlla man je suis le camp de l'opposition tey réew mi dafa bëgg changement Macky Sall na comprendre ni kenn mënu def coup de force se déclarer élu au premier tour donc ñun ak man ak waa opposition bi yëpp daanu jug taxaw parce que ñun peuple bi la ñu bañ ku violer donc euh, euh, sa parole ku violer sa position. Mm-hmm. quelque temps dina def benn conférence de presse ci biir carte général la moom président Macky Sall ne moom jàll na au premier tour yow mi sekkoon nag moom langue gi ban message nga koy lancé avant loolu di am. xam nga man yàgg naa ko wax ni que moom la góorgóorlu. ba fexe réew mi di fi installé nekk situation boo xam ne man na échapper à tout contrôle déjà moom di yi élection yi am ñëpp a naqarlu ñun dañu bañoon boycotté moo tax ñu force dem ci élection yi mu écarté ay candidat euh, tey ministère ministre de l'intérieur am organisé ay élection mu yow aussi ni tey il se déclare il se déclare premier tour loolu su ko defee dana am responsabilité bu rëy ci biir Sénégal sama position mooy loolu sama position mooy tey loolu mooy ëllëg sama position euh, Ndeye Fatou man door laa goo ni su ma wax mukk di dellu gannaaw personne ne me prendra à défaut sama position bi ma suma changé bien que wax ji ñaaw ci nekk ak sos bu nekk jéem nañ ma ko indi si man ma changé position quand de l'opposition laa àndal je suis du côté de l'opposition et je félicite Idrissa Seck d'être arrivé deuxième moom lay jàppale deuxième tour su neexee yàlla. te nga xanaa nga defal ñu fi tuuti ton d'humour parce que gis nañ ne c'est un maître boo xam ne il est il était toujours de bonne humeur neexal na campagne bi vraiment nga bàyyee ñu loolu rek ci soirée électorale bi. waaw mais bu nit ñi bu nit ñi yaakaar nag. <laughs> dama am déception. Mhm. déedéet sant yàlla bu baax. Mm-hmm. sant bu baax Cheikh Mat sant kilifa diine yëpp ñëpp xam ni mm-hmm. aw ma appareil de parti mm-hmm. aw ma daan ma aw ma appareil de parti boole wax ju ñaaw ju nekk ñu tekk sama baat man seul contre presque contre tous ma dem engagé la bataille yàlla may ma li ma may maa ngi sant yàlla bu baax la ma waxoon moom lay dellusi na ñi ñu jàpp ni fépp toj naa ko toj ko moo tax nit ñi man ànd ak man ba ma agsi fi ma agsi mm. kon la ma doon wax rek laay wax mm. toj naa ko rajax ñu xam ni ma dikke na mu nekkee woon rek noonu la nekke ma dikke du soppeeku dëgg la borom xol bu. jërëjëf bu sedd bi si kon la zéro stress. zéro stress yàlla nag macha allah man aw ma stress. amoo stress dama bàyyeeg lépp dama bàyyeeg lépp yàlla xam ne lu yàlla dogal rek mooy am. dëgg la mënuma jiitu yàlla. waaw mënuma jiitu yàlla. bu leen fàttantee ba ma voté nee naa woon am naa espoir waaye nag dogu yàlla nu mu ñëwee danaa ko nangu. Mm. nangu naa ka xol bu sedd guyut. ndax gëm naa ni man li ma waroon def yëpp def naa ko. Mhm. te Sénégal yëpp reconnaître nañu ni li ma waroon def def naa ko. Mhm. Euh, donc li si des mooy nangu naa dogalu yàlla Macky Sall na nangu dogalu yàlla. nanu def deuxième tour ñun camp de l'opposition yëpp ñu ànd jàppale Idrissa Seck incha allah. jërëjëf kon nag borom jàmm ak xéwal euh, nekkal si jàmm. waaw <laughs> ah, jàmm ak xéwal. jàmm ak xéwal jërëjëf Sénégal yëpp ni leen ni maa ngi leen di ñaanal jàmm ak xéwal. amiin gannaaw bu ma tojee fépp nag léegi nag tabax moo jot tabax àndandoo takk opposition bi ba lépp baax pour opposition bi am victoire. dëgg la te gëm naa ne am nga ciment bu doy jërëjëf jërëjëf euh, Madické euh, xool vraiment un euh, candidat boo xam ne vraiment il a moom moo tax sax campagne bi vraiment nit ñi gën ci vraiment gën ah stressé alors pour vous dire que Euh, on est toujours a Moustapha qui au niveau de la conférence de presse oui. de Idrissa Seck, Guénel Idrissa déclaration. Mm -hmm. Si on peut retrouver encore Moustapha, parce qu'il y avait, euh, à mon nom aussi, euh, d'autres leaders qui étaient là-bas. Ousmane Donc, pour nous, on a aussi quelle est la déclaration du candidat Ousmane Sonko.